fukki at ci ren delloo ñu kel di revue de presse. ñu ànd ceeg El Hadj Ahmed yore du Macky Sall mi la ak waa këram doy na waa tribune yéene kaa ne marché yi day wàllum sérélem lekk ga ca wàllum corona ga waaw jàppal ni Mansour Faye mi la day gën nañ koo dugal na kon ca of dak laa ilaha illa la laast Guy Marius Sagna waaw daal dinay dëggal nag ne laale am na diggante Diop Sy ak Mansour Faye aa tribune yéene kaa ne ko may ma ma yeggali may ma ma yeggali dama ne la gis ñoom Guy Marius Sagna ba mu fa demee waaw nee na ñin lu ñu mënul nangu mooy assemblée nationale nangu article 100 sur règlement intérieur assemblée nationale waaw dafay tere bépp député boo xam ne kon maanaam yaa ngi ak sa nekk tamit kon ab chef d'entreprise du yoon les écoles yéene kaa ne livre bi nga xam ne nag moom la Pape Alé Niang bind côté université waaw Pape Alé Niang ak Mody Niang la ñu waxoon waaw loolee la wax ba léegi ni lée waaye Cheikh Oumar Anne ma ngay sàkku ci nag dix milliards la ilaha illallah Pape Alé Niang ne dama ne man rapport bi rek laa jël diffamation il y a c'est le rapport qui est diffamatoire moo di ñaa ne man day ñeme naa cay dóor sama loxo ne wàllum ju njaaj ak jalgati day dafa am na ci yorinuk université yéeni kaa gi ne waaye nguur gi mbaadu dafa bàyyi kon Cheikh Oumar Anne mar d' ah, parce que procureur day toppeewul Pape Alé Niang procureur daal nee lu tribunal bi wax loolu laa wax eh way Samba boog sobili ne Thierno Alassane Sall day waaw daal di ne daal nag autoroute à péage nga xam ni Sénégal mooy buur di ne dafa taxaw tolloole boppam ak yàlla waaw Thierno Alassane Sall ne déggoo leen ma de dama ne la Gérard Sénac santu baayam ci boppam la tuddee kon suñu autoroute bii di Sénac sax eh waay Samba mbéta doole njabootu Sénac Sénac yi les ko yéene kaay ne waaye gis nga Thierno Alassane Sall waaw livre bii nga xam ne maanaam moom la bind day da defal publicité ay affiche ci mbedd mi waaw ñu def ci nag mbirum banditisme mbirum wëyu ndax dañu koo leen ne nday jo doom ja lii rek day mandargaal waa APR ñoom yan façon nit la ñu Mamadou Lamine Diallo ci tribune yéene waaw ci livre Thierno Alassane Sall bi nee gis nga lu jëm nag ci wàllum ressources naturelles yii secret d'état amu ci ban secret d'état Mamadou Lamine Diallo ci 24 heures ne Thierno Alassane ci boppam kon moo nekk ci yoon gindi askanuk Sénégal gii nga xam ne ñoom ñoo seenuk alal di ressources naturelles Mamadou Lamine Diallo yemu ca parce que waaye tekki bi laa la wax ci coowal Petro-Tim googu coowal Aliou Sall ak pétrole bi waaw sursaane parce que xam ngeen ne chinois yi xam ne ñoom lañ joxoon nag illaa Touba ña ngay a dem de moo tax nguur gaa ngi wër keneen koo xam ne nag moom la ñuy dénk kon autoroute bi illaa Touba ja waaw waaw milliardaires yi yéen la ñuy waxal duudu ñaaña jóob ci laas waaw nee xanaa xamoon leen ne entreprise yu bare bare ci ay tànku tëj la ñu ne en faillite mar d'Italie la ilaha illallah te jamono jooje la solo yéene kaay nee na président Macky Sall day mooy kanu Emmanuel Macron française yi kon ñu war leen a dekki laat ngeen te waat leen libération yi ne kon dañ ko doon jaay syriens ak libanais yi waaw am na lu bees de mar di tali gendarmerie section de recherche kay def na jaloore de gis nga homme d'affaires marocain bii di Fawd Chawi teg nañ ko loxo kon ci altine ji moo complice am bii Abdoulaye Agne waaje nag ministère de la justice la doon liggéey waaye daa daw de ci ay décret présidentiel yi nga xam ne dañ leen di rey bakkan yi di rot léegi moom dem na ba dugg ci suñu biir famille la wax critique yéen kaay ne dëgg la léegi kay mën a su lumb te déggoo ne kon ma colonel Mouhamadou Sall mi la dama am liggéey bu bees te ab mission bu bees mooy man colonel dama war a adduna bi boog soobi le ak terminé rek kaay ne corona da waaw ñaari doomu aadama ñoo dee démb waaye mel na ne mi ngi wàññeeku de dëgg la l'observateur ne waaye université day ah, am na ay de amul ndox mbir mi xat na en tout cas ndar jëg Jurbel ak waaw pare nañu ngir benn fan yoru septembre bi waa Ziguinchor ñoom moom reporté nañ ko aj nañ ko de Ndakaaru ngaay jël job université danañu xëy mi ci bi day dañu ne dinañu fay weeru avril mai ak juin waaw école privée loolee ñu bëgg a def chantage la sàcc la nju njaaj la arnaque wala escroquerie la en tout Macky Sall day war na cee wax parce que école privée yooyee kon am ndimbal day jóge ci nguur gi di dem ci ñoom te ndimbal loole alalu askan wi la évidence yéene kaay ne meeru lan mbénge de ma ko ma juuf waaw plan Sénégal émergent vert bi lé lam ca bëgg daal mooy zéro déchet ca commune sur quotidien nee na élection locale yi day parrainage dootu ci am alhamdulilah laas ne élection locale 2021 yi waaw parrainage ba dëpp de maa la ko wax te gis nga rapport bi day dëgg la waxtaan ba juboo dee am na de élection locale waaw waaye présidentielle yi di ñëw ak législative yi day mbir maa ngi taxaw foofu leeragul ba léegi de lees ko yéene kaay ne élection locale juboo ngay commencé di ci am parce que parrainage bi moom nañu ko nañuy falee maire yi fi mu nekk ni lé action yi day nañ leen doon falee rek lañ leen di fal mooy conseil municipal yi waaw waaye maire ba moom suffrage universel direct rek nit ñaay fal de la Sall bi kay conseil constitutionnel daganal na ko a pare de maar de Italie parce que nag bu ñu sukkandikoo ci maître Souley Makodou Fall avocat la tey ca Paris waaw ak professeur de droit constitutionnel di Babacar Gueye nee na bu ñu jaaree ci wàllum yoon rek Macky Sall dara terewu ko mu am troisième mandat de maar de Italie Dakar Times ne mandat présidentiel yu bëri ci diwaanu Afrique waaw waaye mbirum jaay doole yi nga xam ne moom la ñuy def ci soppi constitution yii ci lu leen neex kañ lay jeex tribune yéene kaay ne buñ ko ko dëgg la ku ak manifestation yu fa doon am ana IBK fan la mujjee xanaa daaneel nañ ko fii ci Sénégal nag wàllum ger gi def lu la neex te dara du ca fekk di wàllum impunité jël sag njaboot gi la yow président Macky dugal ci biir état bi ah dama la bagage yi fa daje ingrédients yi daje nañ ngir askan wi ci boobam kon wàcc ci mbedd mi di révolution populaire dañuy fipp de dëgg la <laughs> waaye ñoom daal nañ def lu leen neex nañuy xam ne rek suul gaz moom du ko teree xeeñ te ko fiy tere boo paree ma ne la alaaji master office déco bi ngeen fukki at ci ah, a ñëw tey. studio bi tey hmm. <laughs> maa ngi dégg sa international bi nga ne. Laurent Gbagbo daal benn tribunal ca Côte d'Ivoire da koo te doon nañu am yaakaar ne dina présenté wu. Mm-hmm. ay ñooñu am. Ah, waaye tribunal bi da koo rejeté sa candidature. ok sax ñoon moom bokkul ci liste yi moom bokk fa. ci ah, moom déjà moom mënut a sax voté déjà. ah néewul ci liste yi. fa. kon mbirum Karima dikk noonu. waaw kay. mbirum Karima dikk. am nga carte d'identité waaye doo voté. doo voté yow yow yow yow voté woo yow yow yow yow voté commission bi yor wàllu élection yi mu retiré turam. xam nga doom ci tapale. tapale weesuul yow nga jël lu tolloo juróom fukk ci ay milliards. nga ne da defar ay carte yoo xam ni numérisé yoo xam ni moom ak carte électeur bi ñooy ànd. dégg nga jaratul léegi ñuy def ñaar ñaar wala wantaayu ngand yi. yow ñu bindal ay nit ba pare bind ca ginnaaw ne yow doo voté. ne ci liste yi doo voté te yow dañu ne mbir mi dafay ànd. xam nga li ma la wax fichier électoral bi kon mbir mi day automatique carte d'identité ba carte électeur ba ñooy ànd ñëpp a nga dem ba ci biir am ñenn ñoo xam ne ñoo bindu gannaaw ga. nga bindal leen ci ne yow moom doo voté yow moom doo voté yow moom doo voté mais yow moom doo voté moom bu la neexee nga jël carte d'identité Ahmed Aidara wala Karim Wade bind ca yow moom doo voté ñooñu bu ñu demee ca biir vote ba sonn dee yuuxu bay bëgg a dee seen tur du ne ca fichier ba maanaam foofu ñuy signé ah boo voté ba pare ñu ñu tamponné la voté nga signé sa tur nekk ca kayit yooyu nga xam ni président wu bureau de vote ya moom la ñu yor toog ak seeni assesseur yow sa ñu ne nekku ca waaye nag tu es reconnu comme sénégalais yow sénégalais nga tu as plus de dix huit ans majeur ñor xomm war a bokk ci ñii falaka folli ñu ne la yow doo fal doo folli waa loolu mooy lan loolu moom mooy lan ci code électoral bi vingt et unième siècle deux mille vingt ñu naan la yow diw yow moom bokkoo ca ñay voté d'accord léegi mbir ma jeex ñu ne li dal Karim Wade dal na lu toll juróomi junni ci ay nit xëy na danañ leen dugalaat bu ëllëgee waaye ñooñu kañ lañ leen di insérer waat. ah xëy na dialogue bu bu bu yee ban defaraat fichier. dialogue lan. dialogue bi fi dindi parrainage. waaye ma ne déglul ma la gis nga ay affaire ay gis gis nga parrainage ja moom boo bëggee dégg dëgg gis nga ñi ñu éliminé neex na leen neexu leen doublon képp koo xam ne yaa jiitu moom munoo am doublon ku jiitu ca rang boo jëlee pay njëkk yegg si boo njëkk a yegg si yow munoo am doo am doublon ñi nekk sa ginnaaw kay lañ naan juróom-benni téeméer ci ci ñi nga indi ci juróom-benni. junni signé nañ fee ci kilo la jiitu rek de ki jiitu mais ki jiitu moom mënul am doublon dégg nga yow dégg nga ko. ñu ne déposé bi kañ la altine mantulaay bu la ko jaralee une semaine avant ngay dem toog déggoo ma de nit ñi ne kii wérul nga ne man rek maa wér nit da xam li nga bëgg nee nañ li Gakou bi mu ñëwee indi dossier am moo fa jiitu ñu ne après dafa dem añi ndax mbirum minuit lay commencé mais ñoom teel na ñoo ñëw onze dégg nga ba mu demee ñoom Mimi Touré ñëw ci ginnaawam ba mu ñëwaatee. gendarme yi jël chaise jox ñoom mimi buuxante ba ne fa moom Malick mu jël feuille de présence yi xotti moo indi woon jafe-jafe yi amoon buntu conseil constitutionnel déggoo ma de lëf bu la jaralee yow dalaa war a jaral gis nga Macky mii ah man de xam naa ni daal ñun daal suñuy politique ñun dinañ ko roy ci benn côté bi fulla ak fayda ji xam fa nga bëgg xam fa nga jëm xam la nga bëgg. mu jaral kot. point déggoo ma de Macky bu ko mbir mi jaralee Macky xoolul ndigal xalif général bu wax ak jàngu bi la yemale sénégalais lambda bi wax ak xaritam la yemale moom bu ne bëgg lii daal moom laa bëgg da cay mooy ba keroog mbir ma jàll nag mu doog a indi nag ni diw mii sama xarit leen sama kilifa la lii ak lii parce que moom dafa xam li mu bëgg. Ah. dossier Karim Wade yeeg ñoom ñoom Khalifa Sall ak moom doy na exemple. benn ah. ñaar digganteem ak Ablaye itam ba mu ca nekkee nam ko doxale doy na exemple exemple waaye yoru opposition boo xam ni opposition bi yow da ngay toog ba jaa nga ne ñii est ce que newul ne nguur gi sax lañ gën a jege ndax yow yow li ngay def yëpp mooy lu neex nguur gi rek la lu arrangé nguur gi mais bu yàggee ñu ne yow kay yow donc yow tu travailles pour le nguur ah. kuy def loo xam ni pouvoir bi la arrangé kuy def loo xam ni pouvoir bi rek rek rek rek la neex waa kooku kay yow kay yow kay yow kay yow kay yow kay yow yaay yow yaay yow kay liggéey pour nguur wala pouvoir boo xam ni amul benn taañaañal marquage à la ñi koy def ak néew sax mooy ñi génne ci ñoom ñoom Thierno Alassane Sall waaw ñooñu ñuy fipp di mer. parce am na lu leen metti waaw. xëy na ak ñoom Mamadou Lamine Diallo. bu ñu nekkoon peut-être ba tey est-ce que. Guy Marius Sagna. jeex moom daanaan jeex na. Guy moom. Constance toog fi nga toog ne man daal ci lii laa ne point. réew moo xam ne Macky Sall war naa bàyyi entreprise am yi nga xam ne ci jamonoy Covid ji daanaka ñëpp wàcc nañ ku ci nekk na nga xoolaat sa chiffre d'affaires commencé ko fii nii ci kër gi weer bu njëkku corona bi te dañ daan pes ba yàgg ma ma ma ne chimère machine mu ne ma amul. Mhm. amul woon amul léegi la gars yi commencé jóg ak relance bi yooyu amul da dem tali ba ñëw pip zéro ñëpp toog seen kër entreprise yi toll foofu ngay dem ñu naan ay entreprise française yi université de mhm. Ndakaaru euh, MEDEF ñun ay kuréel gu njaboote entreprise bu France du 26 au 27 dama rek ñun ñun lu suñ yoon ñun bañ ñuy def ay ay ay ay ay invité d'honneur rek ay xawma lan d'honneur yow roppalaan gu la yóbbu sax yow amoo ko ba fi ne il faut nga jël jet privé. ñoo fonk. sa entreprise yi di suux li fi jot a dox ak néew nii mooy entreprise française yi fi ne moo tax Thierno Alassane Sall li mu wax loolu mooy dëgg ci Gérard Sénac mi def.